ndax 1950 ba 1960 nekk na ko Guinée ko ba léegi ñu ngi liggéey ñu itam ko nekk Ghana di liggéey parce que dañ di ñëw di gàmmu di gàmmu gi di ñëw waaw kata man lay dal gàmmu gi ñoo ànd maag moom dem ci gàmmukaay bi ndeysaan dafay wax na moom gàmmu bàyyi xamul ku ko njëkk a def ndeysaan ndax dafa moom dafa ñëw ci jëm dund bàyyi la ñëw ni ñaan bàyyi ne ko dama bëgg nga may ma ndigal pour ma def sa gàmm parce que bàyyi na ko Saliou yaa sopp ñi di gàmmu gàmmu yow nga ne mën ngay gàmm ndeysaan ndeysaan mu ne ku nekk bàyyam la xam waaw macha allah bàyyi na ko demee ci Serigne Aliou bu la joxee ndigal jox naa la ndigal. Mhm. mu dem ci Seydi Aliou mu jox ko ndigal. Mhm. mu ñëw ci Mbaye Mbaye mu ñëw ci Mbaye nag. Mhm. ci la commencé mu def. bis bu Mbaye rek réaction bi jàng na ci Mbaye. gàmm yu bëri daan waxtaan ci bokk na ci ñi nga xam ne daan nañ def waxtaan ci Mbaye. bis waaw kon kon la bu mag boo xam ne. génn àddina bu fekkoon jamono jooju ñu ngi nekkoon ci wura bi man ñu bëggoon a dem mënuñoo dem xawoon nañ jël ngaan sax ñu ñëw see. waaye waxtu ne ñu ne déggoon nañ ne yaa ngi ñëw. Mhm. ñu demoon. macha allah ñu jaale ñu ko. Mhm. gisaale it mbokk yi. Mhm. alhamdulilah. ku dimbali yàlla. ñun nag pour ñu ci lislaam am nañu ñoo ko jël tariqa. macha allah ñu ngi ko dem. macha allah. macha allah mbokk yi fàttali leen. mooy tamasut. bil manhaj sahih tanasut bi shariati wa bil haqiqati kon liggéey góorgóorlu taxawal dimbale lislaam feeñ ci ci mag nga xam ne ku ci feeñee jam nga xam ne di muy sama sëriñ buñ la gisee rek dañ xam ne sa sëriñ baax na loolu moo doon mission bi dem ci jàmm ñu ci jàmm alhamdulilah sant yàlla fekk nañ xadrat yëpp ci jàmm min yar min yar min yar min yar bi jërëjëf